wax ci wàllum coronavirus bi ak law bi muy law ci biir àdduna bi ci biir Sénégal rawatina ba tax combat yi di Balla Gaye 2 Bombardier ak euh, Papa Sow Siteu ñu dàq leen ba jëmmi jamono loolu nag doon ab décision boo xam ne gouverneur bu Ndakaaru di Al Alassane Sall jël na ko gannaaw ndaje boo xam ne am na ko ñaari promoteurs yi di Pape Abdou Fall ak Gaston Mbengue affiche yooyu ñu jàppoon leen fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ak premier euh, août deux mille vingt et ci wàllu mbas boobu la ñuy des ak tukki boo xam ne njiitu réew mi def na ko ci yenn centre traitement yu am ci biir dëkk bi centre traitement yooyu nekk ci différent hôpitaux yi nekk ci biir euh, Sénégal rawatina ci biir Dakar président Macky Sall rafetlu njàmbaar bi nga xamee ne personnel de santé bi am nañ ko waaye di sàkku ci ñi nga xam ne ñooy euh, askan wi ñu sàmmonteeg geste barrière yi ñu teewlu président Macky Sall. hôpitaux yi gën a mag ci réew mi ci wàllu wér faj surtout fii ci Ndakaaru ci jamono ji tey ji dox na xool fu ñu toll tam ci ay jumtukaay fu ñu toll aussi ci ay xarala ngir mën a indi paj bi xam ne askan bi soxla na ko ci mbas mi mbas mi nag li si ñëpp wax mooy li am mbas bi dafa ñëw ak li ñuy tuddee variant delta muy melokaan boo xam ne gaawaayam ci wàllante dafa jéggi dayo fa gaaw ci wàllante te virus bi tam dafa gaaw nu muy feeñee loolu yëpp nag boo ko boolee mooy bu ñu fagaruwu rek danañu ëpp doole ngir mu bañ ñu ëpp doole nag euh, li ñuy mën a def mooy topp li docteur yi wax digle yi ñu joxe mooy wàññi dox yi nga xam ne ak daje yi nga xam ne mën nañ koo moytu ñaareel bi mooy di takk masque quand loolu dëgg yàlla lu nit ku ne war a mën a def la ak raxas loxo yi nit ñu ko santaane ñetteel bi muy li ëppati solo tey mooy wàllu ñàkku bi ndax gis nañu ne képp ku ñàkku même bu la feebar bi laale amaan na di si gën a bëri du dem forme grave te loolu rek ci am solo mooy feebar bi bañ la daan ba faat la kon tant que nag ñu ngi mën a ñàkku te gouvernement bi mu ngi def kem kattanam ministre bu fi jógee léegi day jëli téeméeri junni ay vaccin yu yegg si tey fekk fi li fi newoon ak li nga xam ne ñu ngi koy waajal ci mois d'août waaye bu nit ñi itam demul ñàkku ji day mel ni effort yooyu ñu def yëpp du am njëriñ. président Macky Sall gannaaw tournée boo xam ne amal na ko ci yenn centre traitement yi wax ci mbirum fonds force Covid opération yi ñu ci doon amal siiwal gi ñoo ngi ko doon amal ni ki tey ci benn visioconférence général François Ndiaye jàpp ne nag lu ci bëri aw na yoon waaye am na ay yenn irrégularité loo xam ne kon jaarul yoon étudiants yi nekk ci euh, sciences et médecine vétérinaire fii ci diwaan bu Ndakaaru delluwaat nañu seen i classe gannaaw bi nga xamee ne kon. am na jéego yoo xam ne am na ci seen jafe-jafe yooyu ñu amoon nguuru Sénégal ameloon école boobu lu toll ci juróom ñetti téeméeri million ci suñu koppar juróom ñaari waxtu dem na ba tegal juróom benn simili mbokk yi fii la ñuy yem ak yéen ci flash bi amoon mbégte di leen ci gunge ànd ci ak amari Ndiaye ci technique bi léegi léegi dañuy ànd ak yéen.